Boubacar Seye maa ngi lay nuyu. Dékumba maa ngi lay fay. nga nekk njiitu euh, Horizon Sans Frontières Boubacar Seye ñu lay laaj tey ci wàllum euh, député diaspora euh, député diaspora historiquement kañ la tàmbali am Sénégal tamit idée bi naka la ñëwee pour ñuy amal ay député diaspora maanaam député yoo xam ne dafay nekk sénégalais yi nekk ca diaspora ba fala la ñuy daal di tànnee ngir ñu mën a teew ci assemblée nationale bi idée bi nan la ñëwee exactement. waaw xam nga dama Euh, euh, tey mu am ay doomu Sénégal yu dëkk ci diaspora bi euh, ñu fal leen député man dama wax ni loolu lu rafet la voilà man dama ko doon rafet lu depuis le début mënoon na gën a sax am efficacité bu fekkoon am na waxtaan am na waxtaan bu amaloon entre les concernés donc ak waa diaspora yi ah, daf conclave waxtaan ak ñoom ñun kat lii la ñu dëgmal pour yéen nan ngeen ko gisee nan ngeen ko xalaatee pour mu bañ am division pour mu bañ a am explosion implosion au sein de la diaspora pour réeroo bañ a am nit ki dama jàpp ne nag soo koy jàppalee da koy jàppale ci li mu bëgg da ci waxtaan ak moom xam li mu bëgg waaw donc man loolu moo taxoon dès le bi mais nag dama ñu leen woon aussi daf leen attention parce que dafa am piège euh, parce que tey euh, réeroowu leen ni euh, diaspora bi dafa nekk un poids écon un poids électoral incontournable moo tax tey su élection amee ñëpp dañuy dem di rëbb dans la diaspora scénario bi ñu tegoon rek mooy nan la ñu fexe ba di continuer di utiliser diaspora bi pour mu nekk un grenier politique c'est-à-dire que la diaspora au service des partis politiques classiques loolu moo doon piège maintenant li koy firnaal mooy tey boo xoolee quinze députés diaspora amoon nañ fi te dinañ fi amaan mais quinze députés yi bokk ñu woon ci sensibilité yi politique yi ñu jógee ñii dañu nekk majorité bi nekk pour la mouvance présidentielle am quelques députés yoo xam ne ci opposition bi te ñooñu sax euh, ñoo gën a tax ñu xam parce que opposition la ñu nekkoon ñu gën wax ci mbir mi bon bien que nag amoon na ñoo xam ni wax dëgg yàlla man daje naa ci ñoo xam ni ci mouvance présidentielle lañ nekk mais gisuma ci ñoom jaaxal ça aussi il faut le dire mais mënoon nañu invité gën am en efficacité tey su fekkoon am na groupe parlementaire diaspora parce que boo xoolee am na quinze députés mais amul woon groupe parlementaire diaspora donc loolu loolu mu nekkoon ba benn benn faille boo xam ni tey amoon na ci législative bi passé loolu man loolu laa doon éviter loolu amoon na fi am nañu quinze députés de la diaspora waaye amul groupe parlementaire de la diaspora donc euh, loolu nag war nañu mën a xoolaat législature bu bees bi mais su fekkee quinze députés yépp ci opposition bi la ñu nekk du am benn problème mais su fekkee ni dafa am ñoo xam ci mouvance présidentielle kon du amaat groupe parlementaire suñu deful nanga nag même problème yi fi amoon rek moo fi amaat te loolu baaxul baaxul pour la diaspora baaxul pour le Sénégal bi nga xam ni tey dafay dugg dans une nouvelle ère avec les hydrocarbures dafay am forcément un dumping migratoire kon loolu lu ñu war a xoolaat la pour rectifier la copi avant qu'il ne soit tard Euh, lan moo war a nekk rôle député diaspora ak tamit député diaspora lan moo ko euh, différencier wutele ak yeneen euh, député yi. waa xam nga le député de la diaspora dama jàpp man li war a nekk rôle mooy faire avancer la grille de réflexion nan la ñu mën a taxawoo. doomu sénégalais yi nekk bitim réew en terme assistance euh, juridique diplomatique nan la ñu mën a poser toutes les problématiques liées à la gestion de ces sénégalais de l'extérieur loolu moo war a nekk relom au donc lépp loo xam ne rek ñu ngi koy dund ci bitim réew ñoom ñu posé ko au sein de l'hémicycle pour gën a mën a taxaw doomu sénégalais loolu en réalité moom moo war a nekk le rôle naturel voilà d'un d'un nga xam ni ci diaspora bi lañ ko jëlee maintenant aussi euh, dafa am lenn loo xam ni tey muy lu bees une nouvelle donne géopolitique au Sénégal la découverte des hydrocarbures damay wax ni dafay indi un dumping migratoire nit ñi dañuy ñëw kon Sénégal ci aire géopolitique boobu lay dugg ba nga xam ni tey euh, man jàpp naa ni ces députés la war nañu mën a def tout ba poser le volet migratoire au sein de l'institution parce que gis nga la forte dépendance des pays développés yi nga xam ni dañu am un modèle économique énergivore dafa augmenter euh, la convoitise bi nga xam ni tey soo seetloo nga def gëstu les deux tiers am na des études sociographiques pour démontrer les deux tiers des conflits ci àddina bi des conflits liés au pétrole ak gaz mu ngi am dans les pays ñi nga xam ni ñoom ñoo koy produire ba tax na kon tey war nañu mën a légiférer en termes de protection parce que dama wax dumping migratoire gis nga la gestion euh, l'exploitation du pétrole et du gaz dafay indi des déversements euh, disons euh, entre 1976 et 2001 le PNUD avait recensé plus de six mille 6800 déversements à travers le monde da ngay gis tey euh, déversement yooyu day indi des enjeux écostratégiques disparition de l'écosystème de la biodiversité même ci géej gi da ngay gis ay yenn espèces yoo xam ne dootul amati torchette de gaz yi génn dafay indi c'est du de carbone dafay indi ay feebaru sëqat cancer yooyu yëpp tey Sénégal war na mën a réfléchir au sein de l'Assemblée pour les sur les enjeux sécuritaires pour protéger les populations en termes de coût aussi xoolaat les contrats ba nga xam ni tey cette manne financière là dina mën a réduire l'extrême pauvreté facteur de propension à l'immigration clandestine boo xoolee Nigéria daf ko wane ma rappelé ñu en 2005 gis nga Nigéria moo nekkoon euh, premier producteur mondial en Afrique onzième à travers le monde Nigéria daan na ngacc deux virgule quatre millions de barils par jour pétrole boobu indi woon na le gouvernement central plus de trente sept virgule sept milliards de dollars soit quatre vingt pour cent des revenus du pays et quatre-vingt-quinze pour cent de ses exportations tey soo demee Nigéria soixante pour cent de la population ñu ngi dëgg sous le seuil de la pauvreté gisuñu dara loolu nañu fexe ba Sénégal loolu du fi am donc yooyu yëpp tey la ñu war a poser waat au sein de l'Assemblée nationale donc le débat doit être à ce niveau-là te loolu la migration bi nga xam ni moo nekk un élément essentiel de la géopolitique mondiale loolu la ñu war a poser moo tax maa ngi ñaan ñii ñu fal député yaa xam ci diaspora bi nga jógee yaa xam ci Sénégal bi nga jógee ñu bàyyi xel parce que les défis sont géopolitiques géoéconomiques et géostratégiques. tey jii tamit Boubacar Seye ñu lay laaj nan la ñu euh, tabbee député diaspora yi maanaam répartition bi naka la euh, demee euh, au niveau de la de la diaspora réew bu nekk ñaata député lay am parce que leerul ci bopp askanu waa Sénégal. est-ce que <laughs> mhm. waaw xam nga loolu waaw xam nga loolu waxoon naa la ko waxoon naa dès le début mani la même man sax comprendre nu ma ni mu demee parce que man soo xoolee dès le début bi affaire yi commencé Euh, dama bañoon lii dama ni nañ def attention bu ñu tombé ci ay pièges rek parce que dañoo war nekk des même boo xoolee sama candidature boo xoolee nangoo maa nekk sous la bannière quelqu'un parce que bëgguma ñu ma doon tànn piège naan ma yaay député Europe du Sud man ba ma ñëwee Sénégal waxuma Espagne ba ma dëkk bàyyi France bàyyi Afrique du Sud wala bàyyi Côte d'Ivoire moo tax ma tegoon soo mouvement pour xëcc diaspora bi pour ñu mën a am quinze députés li ñu xam daal mooy les quinze députés sont issus des partis politiques léegi nag loolu su amee mais nguur gi day jël opposition bi du parce que dafay am ay conflit d'intérêt dafay am fexe ba la cause de la diaspora pour la diaspora exclusivement réservée à la diaspora loolu la ñu waroon def mais malheureusement moo fi amul donc suñu defoon a jóg député diaspora amul non ni niñ ko bëggee woon ba nga xam ni du am conflit xam nga ko bëggee woon ba nga xam ni coow du am la diaspora uniquement pour la diaspora une diaspora non colorée mais maintenant li am tey mais c'est une diaspora colorée avec des partis politiques classiques donc parti yi ñu jël nit ñi ci diaspora bi lañ dëkk mais parti moo leen fal tey boo doon jàppale diaspora bi na nga fexe ba mu am indépendance politique boppam am entité boppam boo xam ni exclusivement réservée à la cause de la diaspora du am conflit d'intérêt loolu moo tax ngeen di laaj le bilan mais le bilan da ngeen koy laaj les partis ak ngeen fafal donc loolu moo loolu moo indi euh, euh, blocage yi amoon sur les véritables problématiques tey ñaata sénégalais ñoo dee est-ce que gis nga enquête gis nga drame bi amoon na door assemblée waroon na am une commission d'enquête parlementaire dem ñaata sénégalais la caabi fa fi woon donc loolu tamit nañu fexe ba du mu fi am fii mais si scénario bi ñu gisaat nii ci même scénario bi lañ jëmaat parce que euh, quinze députés nguur gi da ci am opposition bi am léegi Boubacar Seye ban analyse ngay def si le fait que euh, dañu gis ni y a une force de l'opposition au niveau de la diaspora maanaam diaspora bi euh, opposition bi dafa am doole ñu baree bari euh, seen vote dañoo gis ni dañ ko jël jamale ko ci opposition bi lan mooy expliquer la force de l'opposition au niveau de la diaspora. waaw xam nga boo interroger l'histoire di gis ni en en diaspora bi moo fal nguur gi fi nekk dans sa majorité mu influencé avec sa famille ba mu am rupture parce que dañu bëggoon rupture au Sénégal kon ñëpp ñu influencé vote bi ba bi bi élection bi bi bi résultat yi commencé génn sax dañu gis ni ni diaspora bi influencé les tendances parce que ñun ñoo njëkk a wote vu différence horaire bi am suñu résultat mooy njëkk a génn ñëpp kantaan noonu amoon yaakaar tamit ci nguur gi fi nekk pour que mu am rupture mais boo xoolee le divorce a été consommé depuis diaspora bi amuñu lu leen neex liñ doon yaakaar tamit amuñu ko en terme de gouvernance globale la diaspora a rejeté la gestion clanique clientéliste et partisane bi fi am en termes d'assistance ñaata sénégalais ñoom la caabi féete ginnaaw ñaata sénégalais ñoom la ñu assassiné ou retrouvé mort dans des circonstances pénibles ñaata sénégalais la ñuy expulsé am na ñu wax ni sax état bi daf koy yëg bay collaborer ak yeneen ak yeneen ñu metti waa diaspora bi li ci gën a li yàggul li ci gën a récent mooy euh, bi Covid amee cette négation post-mortem du jus solis ñu ne néew yi nga xam ni ay néewu Covid la de jóge ci diaspora bi ñu dugg Sénégal loolu te teguñu ko woon fenn mu nekkoon une frustration un bras de fer état jóg rek dana toroxal waa diaspora bi parce que waa diaspora d'accord ñu muy doxale ba dañuy toroxal néew yi loolu mu nekkoon métti boo xam ni tey alors amul ku mu neexul woon ci diaspora bi loolu yëpp nag tax na élection yi nga xam ni tey Euh, bi ñu ko dëgmalee mu nekkoon dama wax ni sax mu am un caractère particulier parce que il s'agissait de dire non à un troisième mandat diaspora bi tamit bëggul un troisième mandat Euh, président Sénégal bi fi nekk parce que le flot que le président du Sénégal a maintenu ni oui ni non loolu dafa leen métti parce que dans un état de droit il faut libérer les consciences parce que troisième mandat éthiquement politiquement juridiquement même le Sénégal n'avait pas n'avait plus besoin de ça et la diaspora ne voulait pas ça def nga li nga def demal keneen ñëw après nga ñëwaat donc loolu yëpp tey dafa nekk autant de raisons qui ont poussé la diaspora pour mu voter un vote sanction pour dire non dañoo bëgg changement aujourd'hui il faut cette disparition de cette tectonique des plaques le cliché euh, ce cliché ce logiciel doit disparaître troisième mandat les nit ñi bëgg na ko et la diaspora aussi bien aussi conseil du Sénégal donc il faut libérer les consciences wax taxaw ak nit ñi leen man kat def naa la may def pare naa parce que loolu nga fi waxoon euh, dëggal li nga waxoon euh, pour que ñu mën a ouvrir d'autres perspectives parce que les défis qui nous qui nous attendent au Sénégal dafa bëri les défis sont majeurs l'extrême pauvreté gis nga la guerre post-coronavirus l'inflation la cherté de la vie yooyu yëpp tey hein le Covid 19 la gestion failles yi mu indi au terme euh, sanitaire ñu waroon refaire notre santé Euh, euh, euh, notre politique de santé yooyu yëpp tey moo metti diaspora bi ba nga xam ni dañ ne impérativement il faut que ñu wane suñ bopp à travers un vote sanction pour que régime bi mën a mën dem. dernière question Boubacar Seye juste une minute di arrestation bu violente maanaam ab diplomate sénégalaise bu ñu malmené foofu ca Canada ca Ottawa police bi daal di koy amal ban jàngat nga ci am. waaw mais xam nga. man moom lépp loo xam ne rek dafay dem ci toroxal doomu aadama wala di ko violenter wala di ko sonal loolu mooy suñ combat de principe duñ ko dañ koy ñaawlu mais xam nga tey euh, y a un problème euh, vu immunité diplomatique yi am yëpp moo nekk ay convention ci àddina bu ñu demee ba léegi waxatuma la sénégalais lambda mais le diplomate sax dañ koy mal mele waroon na tax Sénégal mu xoolaat boppam ni muy doxalee politique am sur le plan international ba mën a aar ay doomam tey dama wax ni vu les enjeux géopolitiques ma alerté woon ni l'ère post coronavirus l'ère post guerre ukrainienne dina indi beaucoup de tensions géopolitiques liées à la migration kon loolu war na tax Sénégal tey mu fexe ba taxawal un état fort à la hauteur des enjeux pour une meilleure protection doomu bi nekk bitim réew rawati nag ay nit ñoo xam ne moom moo leen yóbbu ñu ko fay représenté kon tey Sénégal war na xoolaat war na xoolaat en tout cas li xew nii mu def ci jàngat boobu pour mën a taxaw ay doomam yi nekk bitim réew parce que ay sénégalais lam laa lan doon agressé di leen sonal aujourd'hui c'est un diplomate je crois que il y a un problème kon yooyu yëpp tey war fexe Sénégal mu tëggaat une bonne politique migratoire wane fulla aussi ci àddina parce que dëkk yi dañuy nappante rek alors boo nooyee rek ñu toroxal sa toroxal say mbokk loolu moo fi nekk je crois que nag lii war na servir leçon pour que ñu xoolaat euh, nan la ñu mën a tegee une politique migratoire boo xam ni non seulement day day day tax ñu gën a respecté doomu Sénégal bitim réew. Euh, Boubacar Seye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi lay sant euh, maam. Boubacar Seye ñu ngi koy remercier bu baax a baax may fàttali yow yaay njiitu ONG bile di Horizon Sans Frontières.